seen melokaani xar kanam di junju ndogal li dogalu cour bu Thiès wuuteeg sàkkuteefu collectif taxawu Kayar ginnaaw bi mu yëkkatee ab plainte jëmee ko ci Touba Protéine Marine. mooy ñëpp ñu doon waa Kayar ñu doon ñu doon ñu saisiroon tribunal parce que nee nañu bari na dafa dafa leen bund xatal foofu tribunal nee na loolu yëpp amul waxuñu dëgg parce que dossier bu ñu produit dossier boobu wane wu ñun par contre bari na dossier yu ñu wane moo gën a dëgër parce que mooy wane ne que lépp luñ ñu tuumaal amuloon donc loolu moo tax tribunal dogal ne débouté leen mooy maanaam rejeté seen demande loolu nag teewut ba collectif bi jàpp ne xeex bi duñ ko bàyyee noonu ñoom jàpp nañ ne sax wares na ko mën a yóbbu ci yeneen i ëttu attekaay yu ko mate. am nañ si mbetteel. mais amuñu si naxar parce que lan moo tax amuñu si naxar mooy li njëlbeen la rek tant que Bargny mu fi ñuy continuer di xeex ak moom dans les voies légales nag parce que ñun dañoo nekk ay légalistes te xam nañ fi ñuy jaar. lu jëm ci biir dossier bi nag avocat bi nga xam ne moo teewal Touba Protéine Marine dàqul ñu yëkkati ab plainte jëmee ko ci collectif le ñoom dañu dañu dañu dañu tuumaal usine bi yàq deram su le plan national et sur le plan international parce que dem nañ fu nekk. donc Bargny mën na léegi retourné wu pour poursuivre leen ñoom pour demander ñu euh, lu ñuy wax ndàmpaay dommage intérêt parce que c'est ma procédure bu ñu engagé procédure boobu procédure bi c'est une procédure vexatoire mooy maanaam loo xam ne ne yow wóor na la sa bopp taxawul. collectif taxawu Kayar jotoon naa porter plainte ci weeru septembre bi ñu génn ci xeex boobu boobule ONG bi di Greenpeace jàppal ko tànk. ñoom nag bokk na ci li nga xam ne moom la ñu tuumal unité yi lee ne dañuy jeexal jën yi jóge ci géej gi rawatina yabooy bi